asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare bu baax a baax euh, seen émission a en ñu waxtaane ko waxtaane li xew ci réew mi xew-xew réew mi a li nga xamante ne bii ni mooy jafe-jafe yeeg ak coow li fi am euh, ci jamono yi weesu ñu di nuyu chers internautes yi nga xamante ne bii faral di topp nag ci plateforme yu yaatu yi nga xamante ne bii ñu ci la ñuy leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaan aussi ngeen bañ a di abonné partager euh, seen sunu ay émission pour ñu bëri mën cee jot bu gën a yaatu bu leen fàtte aussi di laal cloche de notification bi mooy ànd ak euh, toujours nag euh, le doyen sama grand muy Souleymane Ndiaye le grand journaliste ñu koy siyaare bu baax a baax di ko nuyu. ngi lay fay bu xaadir ñu ngi lay bu baax di la la teg sa wàccuwaay di wax ne comme ni nga ko waxee namoon nañ ñu internet yi. Mm-hmm. ñu di leen wax ne rek saa Euh, même bu ngeen ñu gëjee gi si sunu xel yëpp ci yéen la nekk mm-hmm. toujours dañuy bëgg rek taataan indi ñëw yëkk ko pour yéen tamit su ko defee yéen ngeen joxe ci seen xalaat mm-hmm. euh, comme ni ko du xaadir waxee le grand présentateur mm-hmm. euh, bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification mais di commenter aussi pour wone pour jox ñu jox ñu aussi seen point de vue yéen d' accord am na ci solo lool fu jógee ñu dem directement nag ci actualité li nga mhm. xamante ne bi nii moom la ñu war a waxtaanee. Mhm. actualité bi mooy lan euh, coow li bari na. Mhm. bari na ci euh, tànn bi nga xamante ne bi nii moom la Ousmane Sonko tànn Bassirou Diomaye Faye. waaw coow li bari na aussi euh, ci tànn bi Macky Sall tànn Amadou Ba. mu doon mbir moo xamante ne bi daal. ñaari candidats yi am na critique am na coow. yaatoo yaatoo yaatoo. waaw waaw dëgg la nag biñ ci gën a mën a retenir sax mooy bi euh, Amadou Ba moom peut être mën nañ ne mu ngi à l'aise moom amul jafe-jafe mm-hmm. mais bu Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. xel yi dañ ciy sikki ndax dina dem wala du dem ban gis-gis nga ci am. waaw damay bi may damay njëkkee ci candidature euh, Amadou Ba. Ah. Amadou Ba boo xoolee moom ak Bassirou Diomaye ñoom ñaar ñëpp c'est des inspecteurs euh, des impôts ay inspecteurs impôts lañ euh, kii fare ci kujje gi kii fare ci mais Amadou li ñu wax moom mooy ñun benn constat laa def constat ma def le président Macky Sall dafa joxoon Amadou Ba mu commencé tournée économique parce que bu ñu fàttali ko lu ci mel ne ay Mbour ak ay Tivaouane yëpp Amadou Ba moo ñëwoon mais à un moment donné gis nañ le président de la république Macky Sall moo muyal le maillot. a tournée bi. jëlal ko boppam waaw jëlal ko boppam Amadou Ba moo ko tàmbali woon parce que ñëw na ba ay Mbour ak ay dëkk yu bari commencé woon doon def activité je ne sais pas xaw ma nag lu waral lool mais daal mm. euh, critique bi. mais nag gis naa ba doguma la nag gis naa Matam euh, démb gi bare xaw ma ci démb. Mm-hmm. mel Mhm, moo wéer mel ne da ko xam naa nag dafa raté woon yoon bi mu ñëw di ko tegaat ci chemin bi tegaat ci chemin bi en tout cas démb daal moom moom bërki dem yëngal na maatam mhm. wax ji ci Farba Ngom wax di gën a dëggal ni euh, maatam daal titre foncier wu Macky Sall mhm. amul tiit amul ragal nañ jàpp foofu moom ñoom ñoom xam waaw loolu moom élection yi koy déterminé a maa ngi maa ngi jégalu ci doom bi ma li nga xam ne loolu mooy dëgg. ndax xam nga waxu ah waxu Farba Ngom boobu moom. loolu la acteur politique war a wax da nga war a wax ne fii maa ko moom. dëggal sa waaw mais nag li koy déterminer mm-hmm. ëllëg mm-hmm. électeurs yi la électeurs yi ñooy wane ndax yow yaa ko moom moom déet parce que sénégalais yi kenn moomu leen mm-hmm. mais euh, Amadou Ba euh, euh, jàngat bi may def ci moom ñu ci bari boo xoolee Souleymane Jules Diop mi fare ci ngu fare ci Benno Bokk Yaakaar nekk jegeñaale président Macky Sall def na benn émission ci ci ci ci ci grand jury wax ne carrément daal dafa gis ne Amadou Ba daal dese naa yëngatu daal waaw maanaam banque politique beeg waaw kiiw politique mal bu dee ci wàllu nee na ci wàllu xam-xam intellectuel ak tout nekk na ci moom mais politique beneen kii laaj na tuuti benn kii daal neen dafa gis ne keroog li mu wax sax da ko wax ci nasaraan dafa ne je le trouve très amorphe maanaam nit koo xam ne daal dese naa yëngatu daal voilà euh, te politique aussi soxna ni politique dafa soxla dynamique Euh, xëy na peut-être loolu mu bokk na ci li tax président Macky Sall mm. kii ko ñenn ñi wax nañ ne mm. ñenn ñi wax nañ ne parcelle ga mu nekk musu koo gagné ndax mën na nekk président de la république mais Macky Sall toog na fi euh, moom it def benn interview gars yi na koy sa candidat bi nga sàmp mu ne candidat bi ma sàmp nañ xam ne du moom da ngay dem parce que bu dee day yóbbaale appareil appareil Benno Bokk Yaakaar day yóbbaale appareil APR e mm. donc il la la majorité la majorité ñu ñu ngi ci ginnaawam donc bokkul ak Amadou Ba mi dem élection. ku ci ne daal ci am aw sas. waaw mhm. bu ñëwee ci jomaay. Mhm. donc boo xoolee nit ñi bëree gën a gën a bëri bëri bari euh, maa koy euh, ñi ci gën a bëri ñii dañu comprendre ñii ñii comprendre ñu bëgg nañu jàppale euh, Bassirou Diomaye fay wala candidat Sonko bi bëgg nañu ko jàppale ñeneen ñi am ñeneen ñi. Euh, comprendre nañ sax mais dañu bëgg a lëndëmal seneen euh, euh, xelu sénégal yi mu nekk ñaari kii kii dafa comprendre kee aussi comprendre mais dafa bëgg a lëndëmal xelu xelu Sénégalais yi donc lu ma bëgg wax ci ñaar yooyu mm-hmm. bu njëkk bi mooy Bassirou Diomaye fay dañ ko téye woon ci liñ ko téye woon ñu ne dafa def outrage à magistrat dafa xotti war may magistrat ñu placé ko si sous mandat de condamné wuñ ko mm-hmm. amul condamnation bu war tax ñu ay dossier am yàqu parce que bu yàqoon sax du dem jot fiche parrainage donc loolu ne ko sénégalais yi njëkk a xam voilà parce que bu ko joto mais su fekkoon nañ ko retiré ci fiche pare euh, ci fichier électoral bi kon gars yi bu ñu demee bu ñu demee DG duñu leen jox ñu leen jox euh, fiche mais hmm. mandataire am dem na ba retiré fiche bañ commencé def waaw kon ça veut kon mu ngi ci fiche fichier électoral bi hmm. beneen bi ci topp mooy que ñu ci bari hmm. dañuy wax ne comme parti bi mu bokk dañ ko dissoudre dañu tas parti bi nangu nañu récépissé bi ñu wax ne loi bi dafa wax ne képp koo xam ne da nga bokk ci parti politique ñu dissoudre parti politique bi yow article L cinquante sept dafa wax ne carrément fii ak un an ci présenté wu nekk am ma wax ne am na benn expert électoral bu mag di Ndiaga Sylla ñëpp a ko xam mu am taxawaay bu rëy ci Sénégal un peu dans le monde ñëpp ñëpp xam nañ mu wax ne article l set boobu frappé na Bassirou Diomaye Faye su fekkee ne dafa bëgg a dem nekk candidat indépendant bu boobaa euh, article L57 boobu day dal ci kaw mais mën na nekk candidat su fekkee ne dafa demee ci coalition boo xamante ne nii am na ci ñaar au moins ñaari parti politique yu ci am récépissé mun nañ porter candidature Bassirou Diomaye Faye loolu nañ ko waxal ñi nga xam ne xamuñu te bëgg a jàppale Bassirou Diomaye Faye léegi nag maintenant mu des ñinga xam ne ñooy lëndëmal xel yi ñi lëndëmal xel yi mooy ñi nga xam ne xam nañ ni carrément Bassirou Diomaye Faye candidature am valable na ñi fare lool mooy ñi nga xam ne ñoo nekk wujj ba Pastef may wax damay wax la ñuy fare Benno Bokk Yaakaar parce que am na ñuy wax ne sax salafiste la yaa ngi dégg musul bokk ci lépp mais ñun Sénégal lan lañ soxla dañu soxla ku mën a ku ci alalu réew yow sa sa croyance religieuse soxla wuñ ko la nga gëm wala dool ñun soxlawuñu li ñu intéressé mooy li ñëpp bokk muy alalu réew mi nga maandu ci jaarale fi nga ko war a jaarale léegi nag sa sa conviction religieuse sunu yoon newu ci yaa ngi dégg te loolu euh, intéressé wul sénégal yi quelque part la waa ji nekk te loolu yëpp bu ñu ko waxee gis nañ ne carrément dañuy wax Cheikh Oumar Anne gis nañ ko euh, ministre de l'enseignement Euh, dem dem na ci kanamu Maïmouna Ndour naan euh, Bassirou Diomaye Faye salafiste la mais malgré tout Maïmouna Ndour naan ko carrément Bassirou Diomaye Faye salafiste. non mais salafiste bi après. beneen bi ci topp. donc donc donc ça c'est rapport après. voilà parce que salafiste ngi ci réew mi. voilà ki gëm beneen am ki am beneen gëm-gëm. mi ngi parce que Sénégal république laïque la. diine sax ñu bokkale wu <laughs> ah, ah. am nga sañ-sañu am sa ngëm-ngëm am déet. donc passe passe boobu nañ ko bàyyi ngeen aussi. ñu et puis du loolu sax du loolu ñoom dañ ko teg ci yàq waaw comme ni nga wax léegi léegi ni ko doxal réew mi ni ko jaaree la yóbbu. loolu lay soxla ay diw lii la gëmal lii la gëm ça ne nous intéresse intéressé wuñu parce que nit que conviction euh, la euh, la la conviction la conviction religieuse. Mhm. elle est elle mhm. donc loolu intéressé wul sénégalais li ñu seen li ñu intéressé mooy koo xam ne buñ ko dénkee li ñëpp bokk. Mhm. kenn ku ci nekk jot ci àll ak xam ak yelleefam. ba pare moom mi ko jiite mu maandu ci mm. bañ a jàpp ne lii moo ko moom loolu moo intéressé Sénégalais yi. loolu maintenant la nga gëm ak ah, loolu. Mm. mais Sénégal ki ko njëkk a jiite bokkul ak bokkul ak euh, bokkul ak nit ñu bëri kii mm. ku xam ku ne sénégalais ne kii ko njëkk a jiite tey président Senghor mais du du woon musulman ah et pourtant la majorité des sénégalais ay musulman lañ mais def na wàllam ba mu kon donc nañ bàyyi affaire diine yi te dafa donte chrétien la mais dafa lëkkaloo woon ak këru diine yëpp ñëpp a nekkoon xaritam ku ko xamoon ku ne xamoon ne Senghor ni meloon ak euh, Cheikh Abdoulaye Laat ah ndëgal ni meloon ak Sëñ Fallou donc na nit ñi bàyyi wàllu ay diw lii la wala lii donc Benno Bokk Yaakaar su fekkee amuñu argument nañ uti beneen argument te bu ñu yàpp ñun Sénégalais yi waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu yàpp Sénégalais yi parce que du loolu moo leen di manipuler donc beneen bi ci topp mooy que. Euh, Euh, ñoom ni ñuy lëndamalee ni xelu nit ñi mooy bu leen gëmloo ne waa xoolal am na euh, euh, nekk fi mu toll nii parti bi mbokk dañ ko dissoudre candidature am valable mais ñu sukkandiku rek ci expert électoral yi li ñu wax. Hmm. ak borom xam-xam yu bëri. Hmm. nee nañ Bassirou Diomaye Kay Faye. Hmm. candidature valable na. parce que su fekkee ne. coalition lay demee. su fekkee coalition lay demee. bu amee ñaari parti yu ci bokk. yu am récépissé mun nañ porter candidature. su ko amul nag su amul ñaari parti yooyu. bon je ne pense pas que du duñu ay cuune. et je sais que xam naa ne lii balaa ñu ko def ça a été mûrement réfléchi. ah, ah dañ ci réfléchir mûrement avant ñuy def euh, avant ñuy jël une telle décision. Mm-hmm. Ah, loolu laa jàpp na. ñu gis ba euh, Guy Marius Sagna démb euh, demoon seeti ji ñu mm-hmm. gis aussi. am ay kàddu yoo xamante ni bi wax nañ ko mm-hmm. ñoom ñi fa demoon délégation bi mm-hmm. di xam ne ni ma Sonko joxe joxe na yóbbante yoo xamante ni vraiment mooy xam ne ni mi ngi ci mi ngi état de santé daal macha allah ñu sant mm-hmm. euh, amul benn jafe-jafe tey la gën a wér tey la xelam gën a dal euh, en même temps aussi tey la gën a euh, bëgg réew mi fas yéene ko yor aussi te it la mm-hmm. taxawaayam gën a yaatu aussi. Mm-hmm. donte euh, am na gàllankoor koo tëj ci kaso bi. Mm-hmm. waaye tey gën a euh, yaakaar ni. war naa mën a jiite réew mi fii euh, at mii ñu jëm muy dem man gis-gis nga ci am. waaw mais dëgër laay googu noonu. waaw xam nga c'est un message rassurant. day baax ku ci mel ni Guy Marius Sagna. ñooñu génn wax ak sénégalais yi ginnaaw bu ñu demee ba gisante ak président Ousmane Sonko saafoon rek moom. mu xamal leen ne moom mu ngi ci jàmm. wax dëgg yàlla. mu euh, ngi sant yàlla tey la gën a bëgg réew mi day gën a pousser ñi ko gën ñi ko bëgg seen xel gën a dal parce que am na ci ñoo gis gis naa ñoo xamante ne ni dem nañ ba jooy sax def nañ ko ku ci mel ne euh, chroniqueur boobu di nekk Feeling Dakar di jimboori temps yi passe gis naa ko benn vidéo dafa jooy nee na waxatuma sax président Ousmane Sonko mu nekk président mais nañ ko bàyyi mu dem kër gis nga kooku cofeelam ni mu toll ci Ousmane Sonko ah kooku bu demee ba génne rongoñam si parce que yaakaar na ne Ousmane Sonko mais su jotee message bi c'est un peu kon bëri na ñoo xam ne sax demuñ ci télé mais tey jii ñu ngi dund loolu ndax seen mbëggeel ci waa ji ak niñ ko bëggee euh, su bugguñu dara lu ko laal. donc pour gën a dalal parce que ba tey daf ci yokk que ni. Hmm. Euh, ñoom nañ ko fekkee. Hmm. mooy nañ ko daan fekkee daanaka mu nekk ay kaf ak nit ñi di ree bëree fekk ko fekk ko muy donc euh, charte bi ko diineem euh, daal mu ngi koy matale. Mm. te mi ngi ci jàmm mi ngi def ak ñoom mi ngi réew ak ñoom. Mm. et mm. donc moom jàpp na ci dañ ko toj. mu jël lépp delloo ko suñu borom. kon donc loolu dafa am solo. li nga wax la day rassuré nit yi. nga xamante ne ñoo ko bëgg am cofeel ci moom. ku dem bay tur ay xéwal. ngir fu fii ci Sénégal. donc euh, en même temps aussi ñu ne ndaw. Mm-hmm. yàlla du tas yaakaar. dëgg la te ndaw ñëpp am yaakaar bu yaatu ci euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. donc dañuy ñaan aussi yàlla bu yaakaar boobu aussi tas. amiin amiin ci ndaw ñi ko yaakaar ñëpp ñëpp. amiin amiin donc euh, réew mi nag ndaw ñi léegi sax xam nga léegi buñ ñu dem ba am ay mag ah, yi Pastef am sëriñ daareem kon affaire bi léegi yaatu na. yaatu na waaw waaw <laughs> ndaw ñi ci nekk dañ koy bañ koy dégg dañuy wax bañuy wax ndaw ñi ndaw dañ naan ndaw ñi daw ñi mais Ousmane Sonko léegi boo xoolee. mais mais ndaw ñi ñoo ci gën a yaatu. ñoo ci gën a yaatu waaw waaw dëgg la Ousmane Sonko sax booy xool ku fi falu fi ndaw ña la fal waaw parce que ñoom la seen avenir nekk ci seen kanam wallaay wallaay donc euh, mag ñi nga xam ni wàllam wéy na moom day da leen di day day gunge rek hmm. euh, yi dootu ko ci dootu ci dootu ko ko jaralati la moo tax bu ñuy wax souvent di di di solliciter ndaw ñi hmm, hmm. donc muy lu am am solo loo xamante ni bi ni vraiment message la boo xamante ni bi dina waat ñu bari inshallah dina indi apaisement aussi dina indi dina dindi njàqare ñu bari tout ni bi ni seen yaakaar gasoon na mm-hmm. mais bu yaakaar yi jeex nañu am courage ba léegi mm-hmm. parce que ngëm-ngëm la rek mm-hmm. ngëm-ngëm la rek ñu gis tournée président Macky Sall euh, mu yaatu lool doon tournée bu am solo nag ñu ci gis nag benn euh, caractère ak benn comportement boo xamante ni peut-être xaw na sévère tuuti quoi par rapport ak euh, yi ñu daan gis xaw donte moom ah, donte moom dañ ko xam ci comportement boobu noonu mais cette fois ci nag jàngat bi ci Sénégalais yi def ñu bari dañu ne Euh, moom ak ñooñam daf ci am ñoo xamante ne vraiment euh, satisfaire wuñu ko. Mm-hmm. moo waral mu mu am colère boobu. Mm-hmm. sa gis-gis. mais loolu la wax. Mm-hmm. loolu loolu loolu nga wax noonu. jàngatu sénégalais yooyu. man man partagé naa ko ak ñoom. parce que soo gisee su waxee ne su ngeen bàyyee ñoo xamante ne qui n'ont aucune capacité des gens qui aucune capacité ñu wax ba wër leen. avec tous les réalisations yi ñu def ah suñ su ngeen leen bàyyi ñu dem ba wër leen ça veut dire que kon mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ses affidés mhm. ces partisans nekkuñu à la hauteur ah, en termes de communication pour wax askan yi peuple peuple bi mhm. xam euh, li nga xam ne président Macky Sall mais dénkaane est-ce que matal nañ ko aussi yaa ngi dégg mais man dama wax ne mhm. euh, bon benn côté euh, man maa man maa parce que dama may wax damay jàpp ne naa ne Macky Sall mu ngi wax réalisation. Ah mais mu ngi wax réalisation yi la ni ay nitam dañ ko war mais xam naa ne sénégalais yi lii lañ boo topp boo jëloon sa micro nga dem poser sénégalais yi question yu ci bëri li ñuy dénoncer mooy affaire état de droit xam nga mën nga def ay réalisation mais nit ñi bu ñu gisee des arbitres des des arrestations arbitraires jàpp ne régime bi moo leen ko teg arrestation yi se loolu dafay gën parce que sénégalais moo buggul ku noot moroomam boo yëgoon nga defar fi ay chantier yi du jeex def ay immeuble def la suñ gisee ni carrément Sénégal yi ñu leen di toroxal ah rek day day indi jafe-jafe ñu gis li nga euh, jafe-jafe euh, yi nga kii te ñu bari wax nañ ko am na ñoo xam ne ñu bari toog nañ ci plateau télé yi ne président Macky Sall su fekkee ne nii la Ablaye Wade bu doxalee woon ak moom nii du doon doon candidat bay nekk président de la République donc ñu gis ne tey comme ñun ni ñu koy waxee am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ñoo xam ne def nañ mais bëri na ñoo xam ne tey ñu ngi ci kaso bi c'est des innocents lan le leen téye ci kaso bi lan mooy parce que dañu partagé wu ak régime bi seeni doxalin loolu na boo ko xoolee yaatu na ci Sénégal am na ñoo xam ne ñu mun a génn ci tale yi waaye ñu ngi ne mer ne pat parce que dañu jàpp ne régime bi fi nekk dafa jël dooleem utiliser ko de trop ci kaw askan bi bu yeboon na nga def ay tali def ay immeuble def ay lu ne gars yi dootuñ gis loolu côté état de droit bi waaw loolu moo bokk na ci li gën a tax sénégalais yi mel loolu man sama conviction la et que ñun en tant que taskatu xibaar dañuy dem di toog ci jotaay yeeg grand place yeeg naanukaay ataay di déglu sénégalais yi su ko wax benn baat ñett lim lee mooy régime bi fi nekk day jaay doole ku wax ñu tëj la ba ci ñun ñuy taskatu xibaar da ngay gis sax yow booy chronique ak yooyu yu bëri ñi ko wax que yaa ñu ngi ne boo ko waxee sax après ñu wóolu la ah te yow waxoo loo xamante ne nii lu jéggi yar toujours li ngay wax da koy teg ci yar mais boo waxee waxin boo xam ne wute naag gis-gisu gaa yi rek boo moytu suba ñu ne la <laughs> gaa yi te nag il faut ñun ñi wax même bu dee dañuy wuyu ji dinañ wax tamit. bu la ko ragal tere wax te nit yi tolluwaay boobu sax dañ a dëgg. buñ ci ci ci lu dul dëgg ci téere. ngi la téere ci lu dul jox la dëgg foofu. am na benn boy tiktoker. bu dëkk Mbour ñu wax Lamine Niass. tout le c'est vrai que ku bëgg Ousmane Lamine Niass manifestation yi gars yi dañu dajeeg moom nee nañ mu jóge kër Ousmane kër góor gi am ku ko xàmme ne tiktokeur yi Ousmane Sonko baa ngi ni ñu jël ko jàpp ko ci loolu ci loolu ci loolu léegi nag xool ko moom mu nekk ci prison bi ba léegi ba tey si lan te kooku danaan def ay vidéo yi jàngale même immigration clandestine def na ci immigration clandestine yi dem na ba ci tefes gi doon def ay vidéo di yee ñi ñaax ndaw ñi yaa ngi dégg léegi imaginel parce que dafa farak Ousmane Sonko kese yaa ngi dégg ah dap nii la ko gars yi expliqué man je n'étais pas sur les lieux mais ñu bari loolu lañ ko expliqué am na ñu bari ñu wax ne voilà am na ñu bëri ñu wax ne nekk bokkul woon ci man manifestation bi euh, je parle sous le contrôle de maître Tall dégg naa mu wax ko mais carrément ci noonu lañ ko téye yaa ngi dégg kon nga xam ne maanaam maanaam njàpp gu ëpp gi ah jàpp gu ëpp gi nee nañ kenn mosu gis ci histoire politique bu Sénégal yaa ngi dégg imaginel maire boobu noonu dëkk Guédiawaye maire Amidia ah gars yi def nañ fi mars ay doomam génn fi jooy fi kooku lan la mën a yàqal état dafa am moyen wala pouvoir wala possibilité boo xam ne mën na yàqal état dara ñu téye ko foofu ah du du xoolal euh, collé ko benn affaire mu des ci kaso bi ah loolu dafa nekk yoo xamante ne yooyu yëpp dana tax képp ko amoon cofeel ci régime bi yaa ngi koy wàññi eh, léegi nag yow yow li ngay jàpp naan li ma fi defa rek li ma def yëpp teewul nangam nangam du say nit la nit ñi mere mais par exemple li ñu mere mooy ni régime bi di doxalee waaw ak nit ñi donc loolu loo loolu la quoi loolu loolu moom loolu moom il faut ñu wax ko pour que xëy na ay conseil buñ ko déggee wax vidéo bi mën a àgg ba ci ba ci fi war a àgg ñu gis ci euh, libération Pape ñu mm-hmm. gis ne euh, président directeur général bu Walfadjri mm-hmm. ñu jàpp ne moom def na say jéego yaatu yaatu. Mm-hmm. Euh, loolu aussi du ñu rafetlu. nit bu ni yow yaa ko jiite. da ngay da ngay da ngay taxaw say employé. ñu geste bu rafet boo xam ne dañ koy doxee hmm. hmm. ba yàlla defal sa yoon hmm. nekk ci njiit sax njiit moom njiit dañ koy mote loolu mooy kéem loolu mooy devoir njiit euh, comme ni nga ko waxee loolu aussi biñ ko déggee nekk na nouvelle bu neex ne Pape Sané Euh, mujj nañ ko libéré mais dañ ko dafa nekk sous contrôle judiciaire donc mu nekk une très bonne nouvelle euh, buñ ko téewaatoon foofu dana nekk loo xam ne lu triste la euh, ceux qui ne comprennent pas sax boobaa mën nañ jàpp ne benn acharnement la ñuy def ci kaw Walfadjri parce que depuis un certain temps Walfadjri dafa bëri ay kilifa yu bëri fa nekk ñi ay taskatu xibaar ñi ay chroniqueurs yu ñu arrêté donc te gis nañ ne yeneen chaîne télé yi demeewul noonu su fekkee nag dañuy wax dëgg rek voilà donc kon euh, libération bi nga xamante ne libéré nañ ko euh, kii nga xam ne moo di Pape euh, nekk na ouf de soulagement waaye bokk na ci tamit li gën a tax aussi wax dëgg yàlla keneen koo xam ne yaa ngi tas tas nekk taskatu xibaar wala chroniqueur ah, nga nekk Walf Fadjri sax saxel dina xaw a dal Euh, nga yaakaar ne peut-être boo dekkatee def dara parce que moom lañ ko toppee woon dégg euh, nee nañ euh, lu bindoon ci page Facebook am la yaa ngi dégg ci loolu lañ ko daane woon. Mhm. loolu loolu am na solo. Mhm. chroniqueur laa leen mën tuddee je sais pas comment ay activiste lañu xaw ma. Abdou nag ñooñu foog si ne am na ay révélation yu génn ci ñoom. Mhm. Euh, bon xaw ma nag lu xew. gis naa Mawla di ci wax euh, ak yeneen yeneen activiste ci donc mu nekk loo xamante ne bu yéeme la loo xamante ne mhm. toujours daal dañuy am surprise gisoon nañu ko ci Pape Ndiaye fan bi nga passé ñu arrêté émission boobu di balance. tey ñu ñëwaat mu dal ci kaw Djidji moomu noonu ak Akhenaton. loolu ñu wax. non dañu gis ñu leen di critiquer ñu ne gars yi ñoom euh, vraiment euh, benn directeur bu kii doon def ko lu wax daal exactement euh, mais daal li ci li ci mooy dafa mel ne doxin bi doxin bi ñu doxee ak di faral ci Ousmane Sonko dafa desee dëgg. que moom Akhenaton moom noonu ñu dañoo xalaat ni pour pare pour Sonko la. donc ni Ousmane Sonko defee choix bi ci ci. jëmale ko gis nga ñooñu ay yàqkat lañ. man maa ko wax je les défie ay yàqkat lañ lii di Akhenaton lii di Guy xam nga daa mën ay yàqkat lañ ñoom ñoo tax ñu naan ñoo tax tey jii même ñi nga xam ne nii ànduñoo ak ah, Pastef di saaga Pastef duñu duñu ay élément Pastef bokkuñu Pastef c'est-à-dire il faut que loolu tamit sénégalais yi xam ko lii di Guigui lii di Guigui lii di Akhenaton xëy na nee nañu bëgg nañu Ousmane Sonko mais bokkuñu Pastef boo bokkul nag ci parti politique toog fee di saaga ndey di def ay affaire su ko defee ñi toog fii naan waa Pastef yi dañoo mën a saaga xanaa xam ne ñooñu lu ñuy yàq ci deru Pastef dafa bari parce que dañuy saaga te ñooñu bokkuñu Pastef moo tax ma ne ñooñu il faut ñu wax si ñoom lii di Akhenaton lii di lii Akhenaton il faut que sénégalais xam ne Akhenaton ak ak ak Guigui du ñu Pastef c'est des activistes même bu nekkee nee nañ soxla sopp nañ Ousmane Sonko bokkuñu Pastef léegi nag loolu mooy indi tey Sénégal ku toog di saaga fële ñu ne la carrément waa Pastef yi nekk bitim réew mais mais ñaan ñooñu la ñoom ñooy toog def ay révélation de saaga nit ñi ndey léegi nag même bitim réew ku fa nekk sax te contre Macky Sall booy saaga sax ñu ne la carrément Pastef nga bokk mais il faut que ñi def la part des choses nit ñi dañoo war a def la part de choses ay bokk bëgg Ousmane Sonko ça ne veut pas dire que mili parce que Ousmane Sonko hmm. dëgg la. Ousmane Sonko sax li mu wax dafa leer Ousmane Sonko li wax dafa leer képp kuy saaga. wala ngay wax naka su dul noonu bokkoo ci man vidéo boobu ñëpp am nañ ko bi ko Ousmane Sonko di wax donc ñooñu su fekkoon ne parti dafa am lu ñu ooy la discipline la du parti su fekkee da ngaa bokk ci parti su fekkoon ne ñoom nee nañ Pastef lañ bokk ba Ousmane Sonko yëkkatee kàddu yooyu ba léegi bàyyiwuñ kon ñu fekkee ne dañoo bokkoon Pastef kon bàyyi nañ loolu mais tey lañ gën a saaga léegi nag Sénégal ñoo léegi nag dañuy tax ñi nga xam ne ay adversaire APR lañ vidéo yooyu la ñuy jël di dagg naan waaw mais da ngay combien de fois ngay dégg temps Tandian daan di di saaga di wax naan Pastef nii même ba ci kaay foofu bokkul Pastef hmm. dafa bëgg Ousmane Sonko mais bokkul Pastef waaw am na benn jour muy wax am na benn jour ma déglu benn vidéo muy wax bay expliqué naan naan euh, moom bi mu nekkee ci combat yi boobu Ousmane Sonko sax euh, euh, euh, kiiwu ci c'est-à-dire que léegi lu ñu bëgg xam nga gars yi nekk bitim réew di défendre projet PASTEF te bokkuñ PASTEF bëri na mais bokkuñ PASTEF léegi nag léegi nag ñi nga xam ne ay adversaire Ousmane Sonko lañ dañuy profité ci loolu naan waaw waa PASTEF yi nekk temps stadian boo xee toujours Akhenaton lay wax kaay foofu lay wax ak ñooñu léegi bugg a dugal ci xelu sénégale yi ne leen ñee pastef bok bokk waa pastef ay saaga lañ pour def ci xelu sénégalais yi ne ñooñu ay waa pastef ay saaga ay saagakat lañ alors que demewul noonu donc loolu aussi foog sénégalais yi xam ko maintenant ñoom ma dellusiwaat ci ñoom nit ñi nga xamante ne noonu lañ doxalee lii di lii di lii di Guigui ak Akhenaton lii lay wan ne bokkuñ Pastef buñ bokkoon ci Pastef Pastef à l'unanimité biñ porté la candidature de Diomaye Faye ñi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci Pastef dañoo d'accord ci affaire bi ba pare exiger ñi leen déggal ne nañ ko ne mais ñoom ñi nga xam ne bokkuñ ci parti seen yoon newul ci discipline du parti bu la neexee ñu toog fële di di di révolté parce que jigi dégg naa argument bi max soo gisee ma laajal la ko bëggoon nga wax ko xam nga man déglu naa vidéo bi dafa wax ne carrément pourquoi Ousmane dañoo sacrifier Ousmane Sonko pourquoi Ousmane Sonko nekk ci kaso bi ñuy jël di teg candidat mais ba Bassirou Diomaye nekkul ci kaso bi. mais ne Bassirou Diomaye. non te Ousmane Sonko ko choisir même ka tax muy kaas di saaga kooko nga ci kaso donc dafa am ñoo xamante ne man jàppewu ma ko ay jàppewu ma leen sax ay nit ñoo xam ne ñu wér lañ. parce que yow. waaw mais mais c' est pas pour rien mu choisir ko rax si dolli moom bu bu taxawee naan yéen bu ngeen di génn di génne candidat yéen waa ay jaam ngeen ay workat ngeen ah, ah Ousmane Sonko naka lay nekkee ci kaso bi ngeen di génne ngeen di tabb candidat mel ne candidat bi ci biti lan candidat bi ci kaso bi la nekk. boo xoolee sax lañ collé Bassirou d' inculpation yu ñu teg yu ñu teg ni moom nga lañu tegaat ci eh, Bassirou bu weesoo tuuma biñ ko tuumaal ci affaire euh, outrage a magistrat loolu bi mu demee ba def six mois ñu war a génn prison dañ ko génne waat tegaat yeneen chef d'inculpation yi ñu teg ci Ousmane Sonko kon ñoom ñaar ñoo yem même pied d'égalité tuuma yi teg ci Ousmane Sonko ah moom lañ teg ci moom kon kooku nekk kaso ab jéegi mu toll fale naan yéen ay workat ngeen yéen a ngi wut beneen plan te kooku ñuy wax sax naan plan lañu kooku ngi ci sax moom loolu xaw naa yàgg tuuti. di wax loolu moom moo lay wax rek ñoom bokk moom non xam nga loolu mooy gën a dëggal nit ñi ne ñoom bokkuñu Pastef mais mu dee kay dañoo bëgg Ousmane Sonko xam nga mu bëgg Ousmane Sonko am na li ñuy ooy sympathisant sympathisant ak partisan du benn partisan mooy ki bokk ci parti bi ah euh, war a sàmmoon toog ak parti bi kooku day respecté li ñu ooy la discipline du parti te bu boobaa lu leader bi su wax ne lii la loolu lay wax wala bu ti d'accord mu manifester ko mais ñee dañu bokkul Pastef nee nañ Ousmane Sonko lañ bëgg bu dul Ousmane Sonko yaa ngi dégg keneen mais Ousmane Sonko dafa mm, Pastef ñoom nee nañ carrément du nit ki la ñuy topp Ousmane Sonko sax def na benn vidéo ne bu leen ma gëm li ngeen war a gëm mooy le projet de société bi ñu teg pour changer les conditions humaines des Sénégalais projet de société boobu jàpp nañ Ousmane Sonko mi nga xam ne moo ko porté woon dem nañ ba xam ne peut-être mun naa mu gaa am gàllankoor ci wàllu yoon mu gis koo xamante ne nii doy na ko mu yaakaar ne ne kii no mottali projet de société bi lan moo war a indi gars yi di salarmé wu lan moo war a indi gars yi di yuuxu di wax te du waa Pastef ñooy wax c' wax jooju il faut nit ñi xam ne du waa Pastef kaas des gens yoo xam ne nii ils sont à l' étranger di sa di wax di déconner di saaga yaa ngi dégg di semer le doute su ko defee nag ñeneen ñi xamul sax te ànduñu Pastef fee la ñuy toll di di saaga naan waa gis nga waaw am na ñoo xam ne ni contesté nañ ko ñooñu ce ne sont pas des militants de Pastef c'est des activistes yoo xam ne neen bëgg nañ Ousmane Sonko ñu ku bëgg Ousmane Sonko su fekkee Ousmane Sonko nee na du dem tànn na keneen bu la neexee ngay saaga yaa ngi mais il faut que ñu leeralal Sénégalais ne ñooñu bokkuñu Pastef ay partisans ay sympathisants Ousmane Sonko lañ mais Ousmane Sonko ba mu tànnee Bassirou Diomaye ñi bëgg candidature boobu jàll dañoo ñu valider ko di ci liggéey ñu ngi ci ñi nga xam ne nii bokk nañ parce que wane nañ seen affaire ñu ngi ci. d'accord ñu gis moom mu ngi mel ne mbàccum gerte <laughs> mbàccum gerte yow yaa ngi bool mais Ndakaaru fépp ah un peu partout dafa mel ne parrainage a ngi ah. <laughs> daa mel ne mu ngi doog kenn mosu ko c'est inédit ci histoire politique euh, parrainage boo xam ne nit ñi dañuy dem indi seen indi parrainé yëkkati xaalis joxe ko loolu mosul am ci histoire politique u Sénégal nit ñi dañuy dem di neexal nit ñi pour ñu parrainer leen ci beneen camp bi dañuy dem di neexal nit ñi pour ñu parrainer leen mais ñii ñoom ñooy ñoo parrainer kon ça veut dire gëm nuñ projet bi gëmuñu Ousmane Sonko participer loolu mooy delluwaat euh, mooy dellusiwaat ci liñ doon waxtaanee léegi nit ñi gëmuñu jëmmi usman Sonko bi muy projet bi mu porté la projet bi nag léegi Ousmane Sonko yi yëkkati na projet bi teg ko Bassirou Diomaye war a taawu projet bi projet de société boobu. Hmm. nit ñi projet boobu dañ ci fondé beaucoup espoir moo tax ñoom ñu ne dañuy pare ne yëkkatiwaat seen xaalis jox ko pour may candidat bi moyen bu mu defee campagne. donc loolu kenn mosut a gis loolu yaa ñu wax bawol bi mais fépp ah. fépp Sénégal ni ñu fardoo lii kenn mos koo gis. d'accord. Mhm. mais gis nañ fii ci ci gox bi tamit sunu maire bi moom def na def na def na def na am na bilan bu yaatu ci ci ci parrainage bi lim bu am solo euh, wax dëgg yàlla loolu mooy wane ne moom it euh, commune am waaw euh, commune am gars yi jox nañ ko bopp waral wax dëgg yàlla

wane ne yow ci réew mi nga bokk. Mm-hmm. yaa ngi pare ne waaye bu wootee jëlee da ngay dem wote ji ki nga xam mm-hmm. mm-hmm. macha allah baax na. macha di ngi leen di jaajëfal comme ni nga ko waxee Abdou euh, di leen fàttaliwaat ne rek comme li ñuy doon wax toujours la ñu njëkkee woon ca kii bi yéen yéenay suñuy doole. Euh, doole ji nag mooy ni ngeen koy yokkee mooy ngeen leen abonné massivement ci plateforme yi ñuy utiliser yëpp di liker di commenter pour joxe seen gis-gis ci li nga xam ne nii ñun ñu ngi koy def ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf frère kon